bu ñuy bu ñuy wax saaga yi justement on en parle euh, parce que gis nañ ni xale yi jëlal nañ la benn benn 72 heures. Mm-hmm. dugg ci sa vie privée. Mm-hmm. am ay wax yu ñu wax ci yow yëkkati ay kàddu teg ko ci sa der dëgg la wala du dëgg dugguma ci côté boobu et voilà mais ni nga ko dundee laa bëggoon xam nan la ak vraiment est-ce que tu as eu le regret bi vraiment vague de euh, vague de d'attaque boobu bi mu ñëwee ci yow est-ce que après am nga regret ci li taxoon ñu attaqué la. jour bi Mélenchon ñëwee laa am regret jour boobu laa am regret Aïcha est-ce que xam nga bokk na ci débat bu ma mës a au Sénégal te bëgguma woon mu am fi parce que un petit peu dox naa xam naa lobby boobu noonu naka la leen débat boobu neexee di am ci dëkk surtout dëkk jullit ñoom débat yooyu di fa am loolu ñoom dañ koy ngand ngandloo da leen a neex que ça soit vrai ou faux ah <laughs> ñoom débat yooyu dañ ko bëgg maintenant su débat bi ñëwee sama sama dëkk dinaa la wax pour pourquoi bi fi Mélenchon ñooy laa koy. doo loolu laa bëgg xam la moo tax. ki ma jàngal alxuraan. Mhm. parce que ñu bëri ñoo ma jàngal alxuraan ah. mhm. mais kenn ci sëriñ yi ma jàngal alxuraan dafa yëg affaire bi. ñëw Mélenchon. non avant ñëw Mélenchon bi mu mhm. yëgee 72 heures yi. ak li ma doon taxé. mu koy jooy jooy yu metti soxnaam woo ma. ne su ma sañoon nga ñëw nga xool Thierno parce que. jaaxle nañ daal jooyam yi metti na boo ñëwoon mu gis la ndax xelam dal ma ne ko baax na dinaa ñëw ma ma guddee loolu jour boobu ma dem bi ma demee mhm. mu ngi tëdd boppam a ngi nii man maa toog boppam ngi nii ma xool ko su ma sañoon daal nga bàyyi jooy ndaxte ñii ñuy def lii defuma dara te du yëngal mhm. te teewul bu subaa li ma bëgg a wax du ci yokk te du ci wàññi lii ñuy def nii mënul yokk ci li ma bëgg a wax dara parce que mënuñu ma merloo ba ma wax lu ma warta wax mënu ci wàññi dara mhm. ba tax li ma bëggoon a wax ma ragal koo wax tamit su may génnaat ci mhm. la jàppee sama loxo siggi xool ma foofu nag jooy naa parce que bi mu ma xoolee ak kanam gi ni mu saddee sama yaram daw na ma jooy ndax bëgguma dara lu ko naqari mu ne ma dama xam ne li ma la wax sànq ni nga jeexee tàkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga sonnee ci daara ji mhm. jàkka yi ci dëkk bi as néew li nga mën yaa ngi ko fay def oustaz Modou Fall bokk na ci seede yi bu TFM ñëw na fekk ab jàkka bu ñu doon tabax si bu ko taan mu jàpp ci Iran Ndaw xam na li may wax ñëw na moom it jàppoon ci mhm. def fa ay conférence ñu dajale li ñu am ak lu ñu amul def fa jàkk loolu mu ne loolu mhm. nit ku mel noonu ci yoon wii ñu mhm. xëy sañ koo sosol sos wii nga xam ne bokk na ci li lislaam gën a bañ jooyaluma la ñoom laay jooyal ma ne ko loolu lépp jar ko mu ne parce que dama leen a yërëm ñoom moo tax ma la koy jooyal ñi la ko jiiñ dama leen yërëm seen ëllëg ñu toog xaaral ma terminer histoire bi ci guddi gi mhm. ma ñibbi bi ñu giifee waxtaan yeneen i waxtaan ba giif ma ñibbi mhm. bi ma ñibbee ma tëdd ma yeewu 5 heures du matin ma gis ay appel ci guddi gi woowaat na ma lu bari ma xam ne moom heure boobu dina fekk mu yeew ma jaaxle tamit ma ne faw ma waat ko xam lu ma doon doye ma woo ko mhm. mu ne ma na nga def ma mu ne ma yeewu nga ma ne ko waaye yeewu naa si jàmm mu ne ma ak fajar gii su fekkee alxuraan dëgg la mm. ñii la jiin coowal góor jigéen mm. coowal góor jigéen bu leen bu ko ëpp dina leen topp ba seen nguur jeex te du leen wàcc mm. mardi la ma ko wax mercredi jeudi coowal mélange am jour boobu laa ko regretté parce que buggul ma sama dëkk coow loolu di fi sax te xam naa ne ni ma ko waxee noonu lay ne coowal góor jigéen dina leen topp ba baa ñu fiy jóg ndax dañ koo jiiñ ku leen ku ñu gënul ñoom